donc on se comprend Maïmouna moi je condamne toute forme de violence c'est c'est affreux ce qui s'est passé avec les bus c'est affreux ça n'honore pas le pays mais il y a quelque chose qui est en train de se passer mooy le pays est en train de changer mais parce que on a une classe politique boo xam ne pour pour nguur pour nguur pare na pour lépp. Euh, euh, euh, justement mais mais bul teel a. et et il faut interroger ça. oui cette classe politique là n'a pas n'a pas les instruments de gestion. non non c'est-à-dire ñële. pour con euh, pour conserver seen nguur. xam nga da juum soo nee njële yow yaay def entre état ak. coalition Benno Bokk Yaakaar xam nga lan moo ñu indi xam nga lan moo ñu yaa ngi juum ah, c'est pas la même xam nga lan moo ñu indi moi je parle de l'État je parle de l'État non mais mais parfois l'État se confond avec le parti c'est là le problème c'est c'est le problème euh, une lutte de de de conservation du pouvoir euh, a commencé par le PDS Karim Wade après ça s'est répandu euh, chez Khalifa mais loolu on était toujours dans les manœuvres de l'instrumentalisation politique mu déplacé wu ci Ousmane Sonko c'est comme on dit quand un corps est, est attaqué par un virus le corps finit par euh, avoir sa propre résistance Ousmane Sonko ne ko fi nga jaarale ñeneen ñi doo ma fa jaarale moom aussi mu adopté sa stratégie face à sa stratégie ñoom ñu gën a corsé leur stratégie et ça nous a mené Tout à, fait. à mais mais là là maintenant le fautif ah mooy celui-là qui faisait face à Ousmane Sonko et da nga da nga teel a dépassé cap boobu et c'est important pour notre constitution future mooy si les Sénégalais disaient plus jamais un chef d'État nekk un chef de parti on aurait réglé donc tey boo nekkoon président ah non oui loolu ngay non honnêtement may mun a da nga war a kenn koo xam ni ah. dalee ni lii dama koy changer parce que le malheur du pays le président de la République le chef de l'État et euh, pris dans le piège d'un parti comprendre la koo xam ni euh, amul légitimité koo xam ni xamul koo xam ni mosul servir état koo xam ni ay immeuble am rek lay tal kooku nga indi ko mu dugg ci parti bi nekk un responsable di la jege di la conseiller mais mën na yàq lu bëri te fekk si le chef de l'état c'est le chef de la nation le per de la nation am na loo xam ne noonu lay doxalee am na cër ak gëdd goo xam ne sax noonu lañ koy gisee gis nga président Macky Sall euh, pour aborder benn question boo xam ne daf ma ñor tamit souvent dañu ne ni immatériel bi euh, y a y a un échec ça nous vivons euh, tous mooy euh, angoisse bi ñuy wax problème yi ñuy wax sunu sunu état de droit boo xam ne dem na démocratie bi ainsi mais même au plan économique lii yëpp dafa tax on n'a pas suffisamment interrogé le président Macky Sall il faut déconstruire le mythe du PSE tey jii en réalité seen seen seen PIB boo xam ni Euh, croissance boobu ñu ciy bàkku de mais mais mais nga indi tamit en 2012 endettement bi on était à 2300 milliards aujourd'hui on est à 16000 milliards ci wàllu endettement endettement boo xam ni ay infrastructures yoo xam ni sociale rek presque euh, réellement xaalis koo xam ni am nañ ko croissance bi mu nekk une croissance extravertie créé wu ñu emploi créé wu ñu industrie xale yi di gën a pauvre situation bi di gën a tar donc y a un problème de fond nga xool le pays comme le Maroc nga gis ni ñoom ils sont en train de développer ay écosystèmes si je te disais qu'au Maroc actuellement il y a presque quatre pays dans le monde ñoom ñoo leen di jox ay oto 500000 véhicules yoo xam ni Maroc lay jóge di dem. suñu marché bancaire bi c'est entre les mains du Maroc. du, du Maroc nga gis ni am nañu sax benn écosystème aéronautique y a au moins euh, euh Airbus A220 y au moins 100 pièces yoo xam ne marocain yaa koy defar il sont en train d'avancer mais de structurer une transformation structurelle de leur économie donc les vrais débats yoo xam ne waroon nañ ko mën a am waroon nañ ko mën a partager avec les Sénégalais. mënatuñ ko am. mënuñ ko am parce que dañu polluer justement la situation état de droit ak jàmm dafa am solo jàmm dafa am solo jàmm dafa am solo te jàmm encore une fois c'est différent de l'absence de violence jàmm mooy indi lii ñuy waxtaan jàmm mooy indi cër ak respect ngay déglu keneen ki ngay invité donc euh, am ay contradictions interne et ça donne euh, ce Sénégal là ça amène le Sénégal que nous aimons donc daal yow su ma déggee sa argumentaire Macky Sall moo xañ réew mi jàmm. oui parce que moom la ñu dénk réew mi tey jii le premier responsable je fais la différence entre responsable et coupable mais le premier responsable c'est le président Macky Sall tey jii su ma ñëwee sa kër dara am fa sa doom def dara li may njëkk def mooy kan mooy responsable yow la ñuy woo kon le premier responsable c'est le président Macky euh, xanaa